xale bi bégal sama askan mbokk yi Saladel 2022 c'est du 4 au 13 mars du 4 au 13 boo ko déggee di nga xam ni 8 mars dafay dugg ci biir mu tombeek jamonoy seddaay naturellement depuis 2015 dañ koy am benn wétal ci foire yi benn jigéen bu mën góor koo xamante ni tey bokk na ci li gën a siiw ci jamono ci li nit ñi di naan di ko wétalikoo ci seddaay bi mu di ko faj baax lool ci wér-gu-yaram benn produit bu ñuy wax was was ñun ñi nga xamante ni ñun ñooy éleveurs yi ñu ngi ko découvrir ci neex show neex show tour la boo xamante ni doo dem ci benn foire lu dul ni tur bi da koy miin lool loolu ñuy wax was nekk benn produit boo xamante ni tey nit ñi ñu ngi koy faral di jëfandikoo ñun dañ ko miin ki ñu ko miinal nekk jigéen ju mën góor moom laa toogal ñu fas yéene waxtaan ak moom ci 8 mars. ñu am mbégte gu rëy ñu ànd ak yow ci ay foir depuis lia y a de cela sept ans. Mhm. saa bu foir jotee nga nekk xale boobu nga gënoon a nekk ndaw. dëgg di ñu wéttali ci foir yi. gàddu woon ca li nga xamante ne moom mooy sa. Euh, nu mu tuddati termus termus boobu nga daan ci def li nga xamante ne mooy sa produit boobu nga daan jaayee neex chaud baa ngi lañ daan dégg mhm. loo ko daan defaree waaw neex bi moom c'est à base de naanaa la gingembre ak citron mu nekk produit boo xamante ne tout naturellement kenn ku ci nekk xam na ni limon dafa baax ci wér-gu-yaram jinjeer dafa baax ci yaram waaye li nga xamante ne moom mooy lem jàngaloon nañ ñu ne amul benn jàngoro bu mu mënta saafara lu dul dee ki ñu ko jàngal mooy ki yàlla yónni woon ci ñun moom xale bii loolu siiw na léegi ci jamono bañ koy xam moom moo ñu ko xamaloon ba léegi termus boobu yaakaar naa ni saa bu demetee ci foire ci gëm boppam liggéey ñàkk jariñu gi mu gëm ay employé la ci am xale boobu boo dee dem léegi ci ay bokk su lay jël comme ñëpp exposé comme éleveurs yi ni ñuy exposé yor ay employé am teg ay termusam ñuy wër ci biir foire bi waaye yamu ci xale boobu ba tey dafay defar ay produits yoo xamante ni dafay am conservateur ñu mën ko denc lu yàgg nekk ay produits yoo xamante ni dafa am lu muy faj ci ay nit yu bari duñ ci ñàkk ay témoignages xale boobu tout naturellement dañ koy woowee affectueusement neex show neex show moom la ñu dalal ci bësu tey jigéen ñi di la 8 mars ñun waa Ladoum TV ndax xam ngeen ni xale la boo xamante ne ci biir élevage daf cee nekk di ñu wéetale bu baax. neex show maa ngi lay nuyu di la ziar. waaw waa Ladoum TV maa ngi leen di dolli ziar ñu am mbégte gu rëy ak contentement dalal la ci suñu plateau c'est la première fois. tey xar rek lañ ñu xamee. Mhm. mais yow ak xar yi da ngeen a ànd. depuis 2015 comme ni ñu ko xamee mu toll ci juróom-ñaari at. saa bu ñu musaan a nekk ci foire dañ ci daan gis nga ñuy wétali amul foire benn boo xamante ne rate ko ci. Euh, ren nag ñu ñëw mu tombeek 8 mars foiru Adel mhm. ñu ñëw fekk la fi. Mhm. ñu jël la ngir sargal la jigéen ñi nga xamante dañoo nekk ci biir élevage. naka nga commencé sa liggéey bi. liggéey bi ah, maa ngi ci commencé depuis 2015 éleveurs yëpp xam nañ ma boobu maa ngi gàddu benn thermos 3 litres di sucré ci biir foire bi di jaay ma dellu si ci 8 mars bi comme di wax jigéen ñi sama mbokku jigéen ñi laay waxal maanaam benn liggéey jarul xeeb. parce que ma ciy commencé ñëpp xamoon nañ fu ma ci jaar fu ma ci commencé woon lu ma ci doon lu liggéey ci foire yi fu foire am ma doon dem te yàlla dem ba def ko ba mu nekk su benn entreprise bu ndaw daal di ci recruter élément pour wàññi chômage bi aussi waaw di wax ni sama mbokku jigéen ñi benn liggéey jarul xeeb loo jàpp gëm ko rek incha allahu rabbi day dem éleveurs yi tamit ma leen di jaajëfal parce que ñoom ñoo ci jàpp bu neexee ñu jënd bu naqaree ñu jënd di ma encouragé bu ma yegg si fii kon dama leen di delloo njukkal ñoom waa élevage yëpp. elle encore une petite fille toute mince boo ko daan gis gàddu euh, li nga xamante ni moom mooy termuus bi ba léegi son boobu mu daan wax ni ngi ci sama nopp yi neex show baa ngi di wër ci foire bi du bàyyi fen mhm. fu ci nekk mu dugg ci ñamal gaa yi li nga xamante ni tey moom la ñuy woowee was was boobu noonu am na ay vertu thérapeutique yoo xamante ni daf cee nekk wax na leen ko nee na leen ne kenn ku ci nekk gëm boppam ne kenn ku ci nekk jàpp taw a bàyyi ndax amul lenn loo xamante ni doomu aadama te ñu nekk gëm ko te du ci génn entreprise la léegi ndax am na ay yoo xamante ni lam daan def du benn nit du ñaari nit du ñetti nit ñoo xamante ne dañoo nekk ci bi foire du koy ëpp ñu bari ñooy gàddu seeni termus comme na mu ko daan gardoo mu am box comme ñëpp comme ni ma leen ko waxee di jaay ci biir këram waaye dañuy ñëwalaat tuuti ci produit bi ngay jaay lan mooy ay njariñam waa produit bi may jaay comme neex show bi ba léegi ak was am nañ différent mhm. parce que tey booy xool maanaam jinjeer bu tàng ñi ko créer bokk fii Sénégal man bokk naa ci. parce que avant dañ doon defar maanaam was du am jinjeer was ga rek lay doon mais ba neex show bi ba neex show bi ñëwee mhm. la nit ñu bëri commencé defar ay was di ci def jinjeer mais mhm. nag mënuñu ko tuddee neex show parce que neex show yëfu jàmbur la ñu koy tuddee was mhm. léegi ma dikk ak yéen ci jinjeer bi parce que booy xool composant bi dèjà mi ngi ni ci affiche yi dañ koy defee base bi day am jinjeer la day am citron voilà day am naanaa yooyu yëpp lay am te yëpp dafa baax ci doomu aadama mhm. defaraan nañ yeneen yi nga xamante ne c'est pour les mariés aussi mhm. ak ñi nga xamante ne dañu am ballonnement ay hémorroïdes genre yooyu da koy faj mooy pitikola bi mhm. moom ba mu ñëwee yàggul presque un an rek lay def ma créé tamit produit boobu mu nekk produit boo xamante ne bu baax la tamit éleveurs yi bëgg nañ ko waa mën naa ne Sénégal daal ñëpp bëgg nañ ko tamit macha allah moom tamit baax na torop ci wér gu yaram doomu aadama mhm. ak yéen nga xam te ne yéen a ci xar yi mhm. nga xam ne ak poussière beeg yooyu tamit neex bi da leen di dimbali ci soj beeg yooyu mhm. ak ñu nekk ci micro bi yenn yi nga wax ba ci yàgg baat bi tàkk voilà mu ñëw jox la kaas mu tàng jër nga continuer waat naa ne mu bàyyi nga daal di continuer sa animation mu nekk euh, loo xamante ne lu am solo la neex show comme euh, wax nga ko sànq man daf ma ñor nit nekk ci dara ba mu cay tàmbali mu nekkoon daanaka lu ñuy euh, doye dal waaye nga dem ba ci biir ay at di ñëw nit ñi gis ni carrément lii mi ngi njariñ mi ngi ci nga ci woowaat encore fois ci 8 mars bi. Mhm. sa moroomu jigéen ñi. waaw loo leen di ñaax. di leen ñaax rek benn liggéey jarul xeeb maanaam liggéey bu baax bu baax bu mu ci mënta doon rek benn jarul xeeb lépp boo ci gëmee sa bopp rek ci kàttu ni yàlla incha allahu rabbi day dem. maanaam waa élevage sax ñoom ma gën a xam ñoom ku ci ne xam na neex Chaud tey fu mu fu mu commencé ak tey fu mu yegg ta fas yéene ma yem fii ak yéen fas yéene naa dem bay dem ci foire yi Europe fu ne ma fay dem di exposer samay ñu xam ni am nañ produit bio ñu ngi ko créé fii ci Sénégal muy Neex Show mhm. waaw di ko yóbbu ci fu ne ci àdduna bi mhm. foofu laa jëm ak yéen incha allahu rabbi Neex Show mhm. affaire yi avancé na ba moom am na moyen propre yu mu mën a defee loolu wala dafay laaj financement yoo xamante ne tey fi mu toll sa vision ak li xamante ne moom mooy sa bëgg-bëgg ak ambition bi nga bi nga bi nga am ni day laaj ay financement yoo xamante ne amaguloo ko am naa sama projet étude naa sama projet déposé naa ko fi nga xamante ne mooy bërëb bi ñuy financé jigéen ñi mais ba léegi kiyul daal. Mhm. instant bi sama propre moyenu bopp laay demee. mais ba mhm. léegi fu ma bëgg a yegg munu ma fa ba léegi mun ma fay yegg. Mhm. fi bëgg yegg mun ma fay yegg parce que maanaam suuf bu bu sutantee rek. voilà dañ dañ ko jal waaw tey bëgg naa foir yëpp ma fay dem région bu nekk. ma samp fa benn chaise boo xamante ne neex show mm-hmm. ndaw yee nekk ca dëkk ba ñi amul xëy ñu ci yëngatu di ci xëy mm-hmm. loolu lépp ci sama projet la mm-hmm. extérieur ma ko fay yóbbu parce que defaa fois dama exposé foire bouteille bi un litre la des fois day dañ koy ñam mu neex étranger dañ koy bëgg a jël yóbbaale ko mais dañ naan ak poids bi day cher. Mhm. ak bu ñu ko léegi man maa ngi ko bëgg a def tey jii en poudre. Mhm. comme Lipton ni mu def ko en poudre. Mhm. nga xam teen ne dañ koy génne ci Sénégal dañ koy génne partout. ci monde bi fépp nga xam te ne nit ñi dañ koy jariñoo. voilà surtout côté Europe nga xam te ne day sedd jinjeer bi day baax ci ñoom. foofu laa bëgg jëm ak yéen. mais machine yooyu lu ma koy mooy moyen la parce que dañ koy commandé parce que def naa def recherche naa ba xam fu ñuy jaayee. mais dañ koy dañ koy commandé teg ci xaalis la. nekkul. cent franc deux cent ngay dajale pour kii ko mooy problème mu matériel laa am loolu nag moom maa ngi ciy interpellé ñëpp ak ministre de la femme ak Marème fay Sall parce que jigéen laa yaa ngi dégg mhm. ndaw laa maa ngi daan doole maa ngi dem ak samay jomi bopp di taqale mais soxla naa ndimbal ñu ma jàppale pour ma gën a yaatal lii samay mbokku jigéen ñi nga xam te ne ñëpp nga xam te ne amuñu liggéey mën nañ ci ñëw liggéey mhm. ñu jàppalante Sénégal jëm kanam aywa parité bari na jigéen ñi ñu koy kaas ak di ko xeex ne dañ koo war a def ci ñëpp mhm. parité boobu ay financement dafay am di jóge ci gouvernement bi bu koy jàppale doomu aadama yi nga xamante ni ñu ngi ci biir réew mi mhm. nekk ay doomi réew mi moom mu nekk ndaw wax na ko ay début am woon lool waaye mu gëm boppam di liggéey ba si fii am benn projet déposé na ko fi mu ko war a déposé yëpp lenn rek la laaj financement ñaanu ko saraxu ko waaye dafa bokk ci li nga xamante ne mooy doxal réew mooy ñi nga xamante ne dañoo nekk ay jeunes gëm seen bopp di liggéey ñu jàppale leen yaakaar nañ ni wax bii du dugg ci nopp ku tëx ndax am na ñoo xamante ni loolu mooy seen compétence ñi ngi ñaan yàlla képp koo xamante ni mën nga ci dara am nga ci yoon nga jàpp ci bu baax a baax waaye lépp lu waay di wax bañ mu siiw wala lu waay di def bañ mu siiw fexeel ba bu ko communicateur yëg Chérif a ngi ne di romb sànq mooy yor làmmiñ bu rëy bi di yuux di wax ni carrément daa am euh, lu mu yëg ci li nga xamante ne moom la neex show di jaay nga ñëwal. aywa mbokk yi kii toog ak man fas yéenee wax ci li nga xamante ne mooy suñu ndaw si ñu doon waxtaanal boobu ba léegi di neex show Chris lañ koy wax Cristiano Ronaldo di ki nga xamante ne moom mooy. Euh, benn waay bu nekk ci élevage yàgg ci lool yàgg te seek xale bu jigéen bi ci euh, jamono ji nga xamante ne ci la nekk ci ay déwén ba léegi moo am lu ñuy euh, seedeel ci moom mon frère ziar nañ la. asalaamaaleykum waa Ladoum TV maa leen ziar bëggee. di mhm. kontaan nañ ñëpp. dama doon mhm. ñibbi ah, mais il fallait taxaw. Mhm. parce que ndaw boo xam ne. yaa ngi koy wax sànq. teel mos a tàmbalee yegg fu mu yegg. c'est important ñu koy wax. beneen moom mooy su am na leneen lu muy def parce que. ndax sa da koy raxas may wax ak yow de mm-hmm. ndax mm-hmm. da koy raxas te góor dafa bëgg lu raxas ndaxam mm-hmm. lem gingembre citron ballonnement biir da koy wàccee parce que eh, man am na naa fi boobu di ko jël mais dama gis ne alhamdulilah ma ne nag ma dem te du ma wax loolu fii ci micro bi gars yi xam ko parce que nag man la CR7 aussi yàlla ma def loolu. Mhm. man la Christian Ronaldo. góor ko métal tel taxal daa ko wataa. mooy Chérif mhm. mais bro. Mhm. maa lay siyaar nag maa lay kontaanee. non fii la ëppee naa trop. ci téye sa micro ci wax. non dëgg la dama lay suivre tout temps. dëgg la. mais daal mooy loolu. yàlla yàlla dafa jàmm man maa ngi ci trio bi. waaw ñu nekk quatre ci laa bokk. macha allah ñoom la macha allah. ca tëggin bële tëggin bële. ala eh kon <laughs> maa ngi bëgg a ñëpp. non kontaan naa. moo ñoo far jërëjëf. mais day faj naq de. noo dëgg la ndeysaan. Ah, non da koy raxas. def na témoignage bu am solo. Euh, tey nit ki nga xamante ni tey jël na produit utiliser ko defe naa bu ci seede jotee moom moo ko ci euh, mën a def sacré chérif il est comme ça nii la mel ci communication nekk un grand champion waaye trio bi di liggéey liggéey bu am solo ci élevage Sénégal man dama gëm li nga xamante ne mooy innovation moom ak ki nga xamante ne moom mooy Ousmane ak ki nga xamante ne mooy sama frère mbay Balaye gis ngeen liggéey bu rafet bu doy waar la ñu nekk di def ci élevage Sénégal euh, ñu leen di ñaanal yàlla yàlla may leen yoon bu leer waaye neex show numéro de téléphone bi ak adresse bi pour gars yi bëgg a commandé mais gars yi bëgg a jàpp ci société bi euh, numéro de téléphone bi. waaw numéro téléphone bi 77 la. 181 27 12. mooy sama numéro maa ngi dëkk Parcelles Assainies unité 9 ci ginna poste de santé bi. Mhm. waaw sama kër nag ku com ku commandé rek maa ngi sama kër dama lay kii cek cak ñu envoyé la ko mhm. noonu lay demee mhm. parce que amaguma point de vente tamit mhm. maa ngi ko bëgg mais amaguma tolloo lépp xaalis la waaw noonu daal la demee aywa moom mooy nit ki nga xamante ne Ladoum TV moom la njëkk dalal ci li nga xamante ne du mbiru xar mooy lan dafa nekk ci biir xar yi di dund ak ñoom ci biir xar yi di ñu wetti lu ci biir xar yi di ñu jox lu am njëriñ ci biir xar yi moo tax ñu dalal ko ci journée bii nga xamante ne mooy le mars ñu ciy sargal képp kuy jigéen di leen ñaanal seen jàmm yàgg bu baax a baax. mooy télé